neex mu fal la ngay fale. quinzième édition grande journée culturelle et religieuse Serigne Fallou Mbacké ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides yal na fi yàgg lool Mbacké tànd ak wér Serigne Abo Mbacké Fallilu xalifa Serigne Fallou Mbacké ak mboolem jabatu Cheikh Mohamed Fadel Mbacké Xaadim Rasul gi yëpp Serigne Cheikh Oumy Mbacké Fallilu responsable moral Daïratu Salaam moo dellu si ci mbégte mu mag ànd ak la fédération des Daïra Salaam di leen yëgal ak bu mag bi ñuy def at mu nekk jagleel ko wàlliwu yàlla bu màgg bi di Cheikh Mohamed Fadel Mbacké Xaadim quinzième lay doon juróom-ñetti fan ci atum à partir de 9 ca grand théâtre bu Ndakaaru muy doon ci teewaayu Serigne Amdi Modou Mbenda Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall sous le monsieur Mamadou directeur des domaines invité d'honneur son excellence monsieur président de la République du Sénégal monsieur Amadou premier ministre monsieur Antoine Félix Diome ministre de l'Intérieur monsieur Pape ministre de la pêche Guy Marcel Oben Sagna secrétaire général du ministre des infrastructures et des transports terrestres Issacha Diop ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations monsieur le ministre Birima Mangara monsieur Abdoulaye Timbo maire de la ville de Pikine monsieur Amadou Diarra maire de la commune de Pikine Nord El Hadji Mbackiyou Faye représentant Serigne Touba à Dakar Serigne Modou représentant Serigne Fallou à Dakar El Hadji Bara Falilou président Abdoulaye Sylla directeur général Ecotra monsieur Mohamed Sylla PDG m Chimère Diouf président cour d'appel monsieur El Hadji Ba procureur à Kaolack monsieur Moustapha Sow borom banque Microsen Lay Ndiaye représentant Serigne Touba à Pikine monsieur Cheikh Mbaye Guèye PDG monsieur Cheikh Souley PDG Aliou Distribution colonel Abdourahmane Ba colonel Mouhamadou Bamba Sall taalibe Serigne Fallou monsieur Pape Ndiaye monsieur Cheikh Malick Sène marabout de la diaspora Baye Abo Sall jëwriñ Serigne Mbacké Bousso monsieur Babacar Diop directeur CPSNT monsieur Saliou Dione sénateur monsieur Mamour Gueye Touba ameublement monsieur Baye Gana Cissé Milan El Hadji Moussou Gueye poste Kër Ayib Cheikh Alassane Sène président mouvement Jàmmi Réew mi monsieur Oumar Bao Junior opérateur économique Serigne Cheikhouna Mbacké DG Fallou transit transport Serigne Cheikhouna Mbacké trading Khadim Diagne commerçant Pape Mbaye étincelle couture député Cheikh Thioro Mbacké Serigne Khadim Ndiaye président alliance pour le développement du Sénégal marraines yi soxna Bali Mbacké Mountakha présidente fondation soxna Bali soxna Mariama Sarr ministre de la formation professionnelle de l'apprentissage de l'insertion soxna Soufi Ndiaye Sissoko soxna Yacine Doucouré soxna Ndeye Yacine Samb soxna Anna Gabon soxna Aminata Ndiaye Diouf ci Suisse soxna Soda Ndiaye soxna Ñaaña Ndiaye adjointe au soxna Adjaratou Maymouna Ba soxna Fatou Doucouré commerçante soxna Aïda Mbène Seck ci Espagne ak soxna Yacine Ka ci Milan Italie rendre hommage Serigne Khalil Mbacke Falilou Serigne Mourid Cissé Serigne Sadibou Touré Serigne Cheikh Mbacke Diop Serigne Mamadou Seck Serigne Almami Camara soxna Mame Dial Ñing soxna Fatou Ndoye soxna Ndeye Faye soxna Diabalo Pikine ak soxna Mame Yacine Diop programme bi nii la ñu ko tëralee ca bés ba 10 heures ouverture officielle de la journée 10 heures 30 ñu jàng alxuraanul karim wàcce fay kaamil bu ñu demee ba 11 jàpp 11 prestation xasida di ci ànd ak fédération des daayiratu salaam 11 ba midi 30 kuréelu zikrula di ko ànd ak Baye Fallou Serigne Cheikh Oumy ñu def ay témoignages waxtaan ci dund ak jaar-jaaru Mame Cheikh ci kaw thème bii di l'importance de pacte d'allégeance dans la vie d'un fervent musulman 17 heures ñu amal cérémonie officielle bi bés ba édition grande journée culturelle et religieuse Cheikh Mohamed Fadel Mbacke Khadim Rassoul ak Serigne Cheikh Oumy Mbacke Falilou ak la fédération des Daïratou Salam dimanche octobre à partir de heures au Grand Théâtre de Dakar ku ci soxla ay leeral yu gën a yaatu ci 77 558 09 15. Mbacke Mbousso Bella Mbacke Mbousso Bella Mbacke Mbousso